nga waxee soxna Yata li ci spécial moo APR ci boppam moy investir ki nga xamante ne ni moo Amadou Ba lepp nak soxal li nga xamante ne ni moo présidentiel 2024. Mhm. soxna Yata. Euh, Anna euh, ni nga donc amna solo Amadou Ba candidat euh, à la présidentielle 2024 je pense que ne tey jii moom la investir fële ca Ndakaaru Ndiaye li nak mu particulier ni ma ko faral ni ma ko waxee rek semaine passé assisté nañu ci investiture yeneen ñaari parti yu am doole il mm. faut le euh, ci historique taarixu lii du politique bu Sénégal muy parti socialiste ak euh, Aminata Mbengue Ndiaye madame Aminata ngi jaay gis na mm. ko ak ak i ñoñam mm. ñi nga xamante ne ñooy les militants ak euh, partisans au parti socialiste investir ki nga xamante ne mooy Amadou Ba daal di ko signeel waaye itam kazalika parti bi di AFP si njiitalu Moustapha Niass ñoom itam plébiscité nañu ki di Amadou Ba euh, ci joŋante présidentiel bi ñi dëgmal en tout état de cause donc il a gagné le cœur de beaucoup de Sénégalais à Anna euh, tay nak ñi mu bokal ñi nga xamantene ñom la bokal euh, fratrie wala ñom la bokal sax li nga xamantene moy moy mooy gis-gis ak doxalin ci biir parti bi muy APR fa la bok donc ñom ñoko wara samp tay donté rek ana nit ñep duñu bokk duñu bokk xolé ci benn jëmukaay hmm. li ñu naan unanimité amul fenn mm. yonent bi sallallahu alayhi moo ñu gën sax waaye am na sax ci jamono ñu jamono wala moom nga xamante ne topp ñu ko ci li nga xamante ne moom la doon euh, moom la doon wax moom la doon euh, digtal ñi nga xamante ne mooy euh, jullit yi te yàlla mm. santoon ko ko mm. masta maag nit nag coalition wala mbolo bo gis dina am ay frustré adina non la teudé mais en tout état de cause rek mën nañu jàpp que la majorité des apéristes ils sont derrière euh, le candidat euh, à la présidentielle Amadou Ba euh, ci benen fan bi itam Amadou Ba mën nañu j'app ne que ne mom euh, cursusam ak jaar-jaaram euh, c'est un c'est un c'est un c'est un pur produit donc de l'administration mm. ana mom fonctionnaire la mm. donc doxalin bu bu normal bu jaadu rek ci la ci la ci la ci la ci nekk te mom la xam li tax nak njiitu rew mi Macky Sall accordé ko confiance am xol ko xolana xolat ko ba tab ko ne ko yow mi yow yay doon candidat yay mbeur bi wala représenter Benno Bokk Bokk yaakar ak parti bi di APR ci bi mm-hmm. euh, donc mon moko xam Amadou Ba euh, quelqu'un de compétent euh, quelqu'un de pragmatisme voilà il est pragmatique ak quelqu'un bu nga xamantene faire dafa efficace dans l'administration Amadou Ba àddinaam yëpp mën nañu wax la majeure partie de euh, du temps bi mu bi mu bi mu def ci administration moo ëpp sax li mu dugg ci wàllu politique donte sax doon euh, il a cheminé avec euh, Abdou Diouf ñu bëri xamuñu ko il a cheminé aussi avec. Euh, maître Abdoulaye Wade ba ci dernièrement qui di njiitu réew Macky Sall daal di ko wo parce qu'il ne faisait pas partie de paire Amadou Ba torna na euh, njiitu Macky Sall euh, jox ko poste mais bi mu ko joxe poste muy doxal torna 3 trois ans yi nga xamantene ne mu ngi toog di muy à la suite de cela le ko wo ne ko nga ñëw gunge ñu ci li nga xamantene moy suñu gëm-gëm ci wal parti bi di APR donc mu nek li nga xamantene logique de confiance la entre entre njiitu réew Macky Sall ak di Amadou Ba tey ñu di ko investir fële ca euh, Ndakaaru Ndiaye ci un hôtel de la euh, place euh, grosso daal mën nañu jàpp ne kii di Amadou Ba xam na lii di liggéey administration te c'est quelqu'un de ni ñu koy waxee sax. Euh, j'oublie le mot xamna dina dina dina au cours donc de l'émission Anna mais euh, euh, quelqu'un d'introverti Ahmed Ba c'est quelqu'un de du du du du extérioriser ses ses sentiments wala extérioriser lu mu bëgg lu bëgg wax mm-hmm nit ku nga xamantene lu bëri merci beaucoup lu mm. bëri da koy denc ci mom donte sax mën na ko mais mm. dafa bëri li nga xamantene da ko denc ci mom te dina mm. ko dina ko génne en hein, ana euh, je pense que ne lu toll ne parti bi di APR nga représenté ak coalition bi du coalition bu ndaw nga nga porter le flambeau c'est quelque chose de de de lourd mën nañ ko wax d'autant plus qu'il a occupé euh, des fonctions comme euh, ministre des finances occupé nako fi ak Macky Sall jot nako wulu do jox ko dénk ko li nga xamantene moy poste boobu te buñ ne xam nga finance koppar la ñuy wax uh-huh. koppar ci réew bu demee ne Sénégal am na ñu bëri doon nañu lor poste boobu mais njiitu réew Macky Sall moom la am confiance daal di ko ko jox ci lii di hmm. poste ministériel bob ñu jóge fa itam mu jox ko poste bi nga xamante ministre des affaires étrangères ngànk li nga xamante ne mooy euh, diplomatie diggante euh, Sénégal ak yeneen réew yi nga xamante ne euh, ñoom ñoo ñu wër wala dañu am coopération ci dem demlante beeg dikkalante bi wala sax ci wàllug li nga xamante ne mooy comme grosso modo gàndoo daal loolu la ñu mën a jàppagum aana ci ki nga xamante ne mooy Amadou Ba di mbër nag bi waa coalition benn bokk yaakaar ak ak APR daal di samp ñu war ko investir tey Amadou. Alors, ce euh, n'est euh, c'est pas pour rien que le choix a été porté sur euh, la personne de Amadouba. Mounek, mm. un homme d'État avec beaucoup de charisme, Nek également un homme comme annoncé tout à l'heure, occupé un poste de responsabilité yu mag ci oh. gouvernement bi. Nek ba nek fi sax jamono ji ñuy addo mom moy gouverner li occupé li nga ni le poste de premier ministre ministre euh, jamono ji nak ñukoy investir. mo mm. bokk si euh, procédure bi nga xamantene ni euh, mom lañuy doxal jëm ci li nga xamantene ni modi la présidentielle de 2024. mille vingt quatre. Mm. ñuy wax rek ni mom ginnaw bi nga xamantene ni wa PS investir nañ ko wa AFP tamit dal di cey duggal seen loxo bile yoon ñi nga xamantene ni ñoo nekk ci biir parti ba di APR ci bopam ñom mënoo taxaw ngir dëggal wala boog ngir firndeel seen compagnonnage ak ki mm-hmm. nga xamante ne nii mm-hmm. moo di Amadou Badaw. dëgg la euh, merci beaucoup Anna comme ni nga waxee tout à l' heure rek euh, yaatal ñëw na bu baax a baax ci. Euh, jikko wala li nga euh, comportement ak fonction la euh, monsieur le premier ministre Amadou Ba. Mm. li tax que président Sall li nga mm-hmm. c'est très important ñu wax li nga xamante ni gis gis li nga wax li nga en tant que journaliste wala en tant que ñi nga xamante suivre politique en tant que premier ministre je pour parler Amadou mm-hmm. en tant que candidat du de la coalition. coalition Benno Bokk Yaakaar li nga ni moom la président Macky Sall jiite woon ah, daal di koy jox tey ki nga xamante mooy Amadou Ba ginnaaw Macky Sall waxee ne moom <laughs> bokk ci élection yi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu moom la euh, euh, mhm. euh, ma nag kan moo koy conseillé ci côté psychologique psychologue wala côté mental wala côté li nga xamante ni mooy côté maanaam côté nit. Mhm. parce que li tax mu wax loolu Amadou Ba depuis que président Sall jox ko na ko désormais yow yaay nekk ki jiite Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba il a

je crois que dafa dem pour honorer sa fonction de euh, de premier ministre effectivement euh, ñu fàttali encore une fois ci histoire Amadou ans ak ak Amadou ancien ministre des finances finance xam et puis nekk na fi ministre des affaires étrangères entre Sénégal yi nekk Sénégal yi euh, encore une ministre des sports encore ministre de de de l'élevage et puis mhm. euh, euh, le je entre ministre ministre ministre et élevage fait Macky Sall du presque trois mois quatre mois euh, premier ministre parce que Macky Sall de l'élevage y avait que là à ses côtés pour wana li nga xamante ni euh, mom moom mooy fidélité bi nga xamante mom le président Sall euh defoon ci ki nga xamante moy Amadou Ba et puis euh, li nga xamante ni mooy keroog bi nga xamante ni ci la Macky Sall waxé nako Amadou Ba mom moy nek njitu ki li nga xamante ne mooy Benno Bokk yakar en fait euh, y avait y avait le manam amone mbettel bo xamante amone parce que y avait des gens yo xamante ni ñoom Aly Ngouille Ndiaye mhm. ñoom Mame Boye ak ñeneen ñi nga xamante ni ce sont des on peut ñu leen di woy les des frustrés ñom dañu gem teg gi maanaam génne seen loxo ci benn bokk commencé opposé wu. Mhm. mais ba tey gis ko gi déggoo Amadou Ba wax ni kat man euh, dem tontu wala mu def li nga xamante ni moom mooy wane li nga xam ne mooy félicitation noon non dafa ñëwaat encore une fois rangé wu derrière ki nga xamante ni mooy son mentor mooy son excellence président Macky Sall. Euh, bu ñu fàttali encore une fois le 17 septembre 2022 ci la ko président Macky Sall fal def ko li nga xam ne mooy moom mooy kii premier ministre à 16 mois des élections présidentielles sénégalais nag ñi ngi xaar. ci côté li nga xamante ni mooy climat politique bi économique et social la la ci kii di Amadou Ba na def en tout cas tey foofu ca benn hôtel de la place King Fahd daañu xam est-ce que Amadou Ba euh, ñi nga xamante ni moom mooy les sympathisants de APR benn Bokk Yaakaar euh, dañ dëggal tey li tax président Macky Sall am courage ak confiance jox leen ngay ki nga xamante ni moom mooy amul Ba légal moom la amoon tuuti comme genre récit wax ci li nga xamante ni mooy Amadou Ba. alors soxna Yatta euh, mën nañu ne une lourde responsabilité tegu na ci ndodd ki nga xamante ne nii moo di Amadou Ba mhm.